donc président mën na dem élection nekk candidat. waaw mën na ko. Mhm. mën na ko mën na dem élection mën na nekk candidat. nekk mën na dem élection mën na dem candidat mën na nekk candidat dem élection mën na gagné man ñett yi laa wax. waaw man ñett yi laa ñu may wax. kenn mënu ko teree doon candidat bu bëggee doon candidat kenn mënu ko ne aaye naa la nga teg sa candidature yow bu la neexoon yow kenn kese kenn signé lu la dara nga teg sa candidature yëpp ne kandidaa la ñu la dof bi. dañ naan dof bi mais par force conseil constitutionnel ne sa candidature bi nga déposé valable mais mais da nga évoluer ci sa wax de. non évoluer gu ma da nga ma laajatul. <laughs> boo ma laajee ma wax la di nga xam ne évoluer wu ma. Ah. laaj ma. ma non xam nga ne da nga évoluer ci sa na doon mën na dem élection mën na doon candidat. man sama wax du sensé. Ah. dam boo ma dégloo rek sama benn wax mosuma ko sensé. Hmm. man maa ne man du ndóoy maa wax àddina bi yëpp dégg ma ma ne. président Macky Sall deuxième mandat bi amul droit def troisième mandat si sama développement thèse yi ma soutenir maa wax loolu si maa ko waxaat tey aus dama def ay thèse expliquer loolu ñeneen def thèse yi expliquer li ma wax ñeneen def thèse wax le contraire loolu am na wala amul waaw ah. ah, mais si loolu kenn rek moo mën a wax mu am par force la mu wax am conseil constitutionnel mais alors donc nañ bàyyi conseil constitutionnel mu àttanu man li ma wax na nañ. man si mais mais mais am na am man man si thèse laa dëkk. Mhm. magistrat yi di dàq samay thèse. mais parce que ñoom la yoon wax ne ñooy dogal. su daf may wóor ne li mu bind. li mu gën li magistrat bi bind. mais mooy dogal léegi. nag bu ñu nangoo ne di way mhm. bàyyi naa kooku. léegi nag ma ñëw si xarit. dañ man daal si sama xol man Doudou Ndoye su ma sañoon kay dogal dogalal ko la mu bëgg. mu dogalal ko mu dogalal ko mu nekk bu ko bëggee mu dogalal ko ko. c'est l'ami qui parle. waaw. c'est l'ami du président qui, qui parle. waaw. mais c'est pas le juriste. non le, non le, le a dit que voilà ah. ma position. Ah, ah. l'ami du président di su ma sañoon conseil constitutionnel defal ko la mu bëgg bu ko bëggee xamul tax may su ma sañoon conseil constitutionnel defal ko mu bëggee. Mm-hmm. man dama conditionné li ma soxla. dama ne moom président Macky bu mënoon jël boppa teg ko si direction defaraatul suñu constitution bi te loolu mooy defar justice bi nag crois-moi parce que mooy yor pouvoir lépp il faut justice bi mën a nekk façon boo xam ne. mais pour ça il faut qu'il soit réélu. non non bu ñu ko réélire mu def ko. waaw loolu laa wax. jël engagement bi. parce que fii nii amatul mais na jël engagement bi. programme dafa am bu ñu ko defaree. non programme dafa am na ko def si programme am. oh chef man du ma falal koo xam ne programme am li ci nekk doyuma. na ko def si programme am ma fés si wetam parce que man loolu laa gën a gëm lu mu doon man li may wax laa gën a gëm man xam ñaari affaire laa gëm si Sénégal ñett mooy benn bii mooy base réew mi c'est Afrique noire francophone yëpp loolu moo leen gaare tey. waaw xam nga sànq la moo tax ma ne la danga nga évoluer un peu xam nga la dernière fois quand on s'est posé ici da ne. d'ailleurs da ngay indi une nuance très importante kenn mënul tere Macky Sall mu doon candidat. waaw loolu moom jeex na candidature. mais nga ne amul droit ci troisième. candidature sama conception mooy. non ah. waxuma droit ak troisième candidature troisième ah. mandat. troisième mandat candidature. amul droit amul droit ci troisième mandat. man sama sama position mooy. bu déposer candidature am bu ma nekkoon man conseil constitutionnel def yëfu droit. Mm-hmm. du ma ko admettre man sama position ko conséquence warul admettre non waxuma warul dama ne man Doudou Ndoye su ma fa nekkoon duma ma ko admettre waxuma conseil warul admettre du man maa leen defal ay injonction déedéet dama ne man sama responsabilité bopp su ma fa toogoon ah du ma ko admettre mais ka fa toog bu ko admettre mais candidat lay doon. donc bu ko admettre nit ñi dañoo war a nangu. dem élection mais nangul nañ ko Ablaye Wade ah fàtte ko waaw nit ñi naan république ak côté bu manti féete ak côté bu mënti féete nag dañ ko war a nangu. bu conseil constitutionnel. waxee da war a nangu man man tout le monde doit se soumettre. conseil constitutionnel 60 pour cent de ses décisions dama ko contesté man d'accord ma ci mais am na c'est dans l'ordre républicain du lu am neex la mais da nangu la nga xam ne moom la la yàlla tegal du lu am rek neex la par force. déedéet loolu naq di da nga koy nangu boo bokkee si réew damay dawal oto ba mu yàgg benn alkaati ne ma péep muy xale bu ndaw nga taxaw ma jàdd di ma taxawal yow sànq comme ni lay def sànq ni ngay wax man alkaati bi téye la <laughs> nga yor sa portable di wax man naan maa wax alkaati bi j'ai compris que dafa la bëggoon jàpp ngay avancé <laughs> alors dafa bëggoon jàpp ma ah. baab ko ba nga defe ba nga defe loolu du république dafa nga ne gënal na la mais da am lu la gënalul nga nangu ko parce que constitution bi nit ñi di wax ne ko moo la aaye troisième mandat mais constitution boobu moo ne conseil constitutionnel mooy dogal. moom mooy garant bi. ah kon boog mooy dogal. léegi maître que garant. maître kon yow. Mhm. boo nangoo boobu constitution. lu si jóge rek. xam xamal ne mooy sa réew. léegi maître man nag li ma bëgg mooy boobu constitution na Macky Sall wax ne dañ koy sensé. Mhm. dama si dimbali.